non non non maa lay ziar fii looy fii wut. ñu ne foofu touché wuñ fa. non dama ne jili jëlal lii. dafa am loo xam ni. yow sama rakk nga. Mhm. sama xarit nga. Mhm. ah te lii boo ko defee rek. Oh. non non déglu ma man du ma la fekk si. waaw ah, non bàyyi xaaral non déglul. bàyyi yow sama ma nga waaw dama la bëgg expliquer benn affaire nga ah. eggale. Uh-huh. boo nee du ma la fekk rek day mel la fekk yaw bu ma la fekk si tamit si jàmm laa lay fekk si. su ma ma sama kilifa nga. aar bi may raf yee suñu royukaay nga si bu baax xaaral ma expliqué la dañu indi si biir géew bi ñu ne ma ñëw boo xoolee insisté naa parce que géwél sax bëggul xam nga lan moo waral lii lan moo waral daje jili xam waxtaan tey lii bu doon man la dama non non déglu rek dafa waaye defal nànk rek yow àdduna du neex àdduna du neex maa maa yow ñooy wax de suñu puso la ñu yor suñu puso ñu xool lu ñaaw ñu ñaw ñu ñaw diggante yi baleen dañuy wax kii eh, ki maak moom la ah sunu puso la nu yor ñun ñun sunu wareef mooy yor sunu puso di ñaw tey tey yow même yow lii bu la ko defloo sax bu ñëw. Oh, waa CNG gisoo CNG ak policier ak ñëpp. yow yow yow yow yow yow. après après après après après après après après après bay xoolal bay barki sëñ fa dëggal ma wax la waaw boo xalaatee loolu rek dina ma métti sama téléphone la barki maam seera xalaatuma sama yow sama yëf nga ñu suñu pusaloon yor di ñaaw ah tey lii bu doon man man duma ko def xëy na nag esprit yi ñoo bokkul mais daa mel yéen ñaar ay ay de déggoo ma ne même déggoo ma ne ñun bu ñu tegee même même boo bokkul ci ñun sax da da ngay ñëw dugg suñu rythme yéen waa Sensek waaw ñooy bajjëwoon Ndakaaru yee mi ngi noonu Gasson Ngongu incha allah yàlla bu baax a baax a baax parce que amatuñ toll ñu wax fu mu toll nii moom moo des si lamb ji lamb ji jeex na ba pare parce que boo xoolee instant bi yëpp si dëgg la instant ñuy ñaan yàlla dafa ko jàmm dafa ko tawee mu ñëw jàpp paasoo daan ko loolu tax ñu ñaan instant yi amuñu leneen waaw jërëjëf loolu yëpp Aliou ñu bëree Aliou Seye na ñëw moom laa soxla moom la soxla moom laa soxla Aliou Seye 2 wala sos ñoom ñaa ko si ñëw baax na waaw waaw mooy loolu sant yàlla bu baax Euh, tey defe naa sa xol neexul de en tant que organisateur. waaw Babacar sama xol neexul aussi problème bi mooy fii arène bi nañ ko jàngaat bu baax lii dafa mel ni tabaxuñ ko ngir làmbu parce que arène bi dafa jege ba pare ni ko tabaxee baaxul fii ku fi am combat na ko préparé même Modou Lo ay am Mbaye Modou Lo Ama Baldé yooyu yëpp nañ ko préparé parce que fii sécurité bi doyul te booy yi amuñu éducation loolu moo waral lii aussi géwél yi nañuy joxalante seen biir mais ay sànnante ay sabar yooyu taxu jug. affaire dama metti sama xol neexul Babacar xaw ma lu may wax mais arène bi nañ ko xoolaat. wéeru ci barrière bi sa kanam triste grand maanaam looy wax. non j'ai mal j'ai dama triste dama triste ndax tey euh, euh, li xew nii dafa ñaaw te dafay gàkkal encore une fois deru làmb yàgg nañu wax ne làmb sport bu violence bi def ci bëri. sport la bu nga xam ne ay ay ay ay ay nit yu dof ñoo fa nekk lu ne yàq nañ ñu ko te ku ñuy sedd ci gaalu xaj nag da nga war a def tuuba doo ca lekk ku ñuy jiiñ dëmm doo seccoo doo soccoo yeeli liir donc tey li ñu gis nii encore une fois dina tax ba lépp li ñu daan wax ci làmb tey dañu dañ koy dañ koy daal di mérité même stade bi bi ñu ko defaree dafa am ñenee làmb mérité wuñu euh, arène bi sièges yi ñu ñu defaral gars yu bëri dañu woon sièges du siège waa làmb ndax ay dër lañ ñu war defaral béton lañ ñu war a defaral ay chaise u fer lañ ñu war a defaral mais tey lii lii lii encore une fois c'est dommage et ça ça fait peur ça fait peur pour l'avenir parce que li war a ñëw mënul bëre te am na événement yu mag yu war a ñëw événement yu ëpp tension bi war a ñëw man j'ai peur pour l'avenir de la lutte ah ak bii de yi tooy na waar de bi ni mu bindoo mais ndax xalaat nga Modou Lo Ama Baldé fii ndax xalaat nga Tapha booy Boy numéro 2 fii ndax xalaat nga Balla Gaye Boy Niang fii non boy affaire bi c'est devenu très sérieux et sa mérite une réflexion. mais lan mooy lan mooy lan mooy lan mooy lan mooy faj jàngoro jooju. chou man kay fi nekk di ma xaw est-ce que am naa solution bi mooy rek euh, encore une fois ñu ne prise de conscience parce que nit ki aussi euh, tubaab dafay faral di wax ne on ne scie pas une branche sur laquelle on est assise. doo toog ci branche ba pare yow nga jël sii di ko gor te loolu moom moo ñu dal actuellement ni nañu xoolaat suñu toogaay daal yar suñu bopp.